fubale ca ville sainte bu Touba ca gare des Beaux Maraîchers bu Pikine pèlerin yi fi la ñuy jëlee départ waaye pass bi dafa seer il faut rek nga génne 5000 francs CFA. waaw pass bi moom cher na lool cher na lool franchement oui. prix transport bi nag donte dafa cher waaye wàññiwul dara ci ngóor si. ah jar ko rek wax dëgg jar ko jar sa ñaari junni mi ñu seet. si man jar man jaral na ma ko